ndax euh, li njaga liggéeyal Serigne Bamba ci réew mi nekkatul euh, lu ñuy lamlaame ci màggal gi ci Masalikul Jinaan ak ci yeneen ak yeneen yoo xam ne mu ngi ci suuf te koy def nga xam ne ku mbakk yu fay kilifa gu toll ni Alaaji mbàkk yu fay fu mu ne fi ma ànd ak moom li nga xam moom laa séq ak moom li nga xam moom la may dimbali ci kaw ak ci suuf ci lu kenn dul yëg donc suñu directeur la suñu patron la acte bi wala ay vidéo bii ñu gis nii ana yan impression ngeen ci am. Euh, du nangoo génn foo ko fekk dafay discret di liggéey si suuf. Mhm. Euh, lu muy liggéey moo gën a bari lu muy wax. lu muy mhm. wax sax ñëpp mhm. kenn xamul kenn xamee wu ko wax jëf lañ ko xamee. day wax nag dina euh, wax de. <laughs> fine but what euh, liggéey lañ ko xamee. ba tax na saa yu génnee saa yu njëg a génnee ba àdduna yëpp teg ci njëg a bët affaire Serigne Touba moo tax. mu génn mu nekk loo xamante ni lu ko ñor la. te képp ko xam njëg xam na ne sëriñ Bamba daf ko ñor kon Makiyu Faye li mu def nii. ni. Euh, wax dëgg neex yàlla I think Jaga deserves it and deserves more. am na solo loolu am na solo. man damay rafetlu li nga xamante ne moom la Mbackiyou Faye def et c' est que Ndiaga c' une personne boo xamante ne il est carré ñëpp xam nañ ku ñàkk caaxaan donc euh, mu nekk koo xamante aussi ku baax la ku laabir ah, dañ koy remercier bu baax aussi parce que c' est pas évident nga yor yenn projet yu bëri ah, ñun ñu laqale ñi ñun ñëpp nekk fi nga ñuy supporter donc man dama koy wax bonne continuation. c' est pas évident <laughs> directeur. Mhm. lii mu am nii ñun lay ñaax. Mhm. ñun ñu nekk ci keppaaram. parce que tout le temps ci li muy woote lenn dong la mooy liggéey. Mhm. xamee ma ko ci caaxaan mm. xamee ma ko ci duggul yoonam newul mm. ñu bëri koo ci wax njagandur danaan la kan la ci xaw ma ko parce que moom il est toujours ci ginnaaw di coacher di guider di orienter waat mm-hmm. donc euh, lu mu mérité la et des na yeneen a ngi ñëw am na solo macha allah am na solo di damour waaw avant non kon li ñuy wax rek bu bu bu coow li bëree ñun la xanaa waaye bu liggéey bi baree moom njagandur la te moom moo tax tey ñun ñu nekk ñoo xam ne xamuñu liggéey patron ñun liñ nekk Futurs yëpp c'est entre ñun moom moo ñu ko moo ñu jël taf ñu ci bopp boppam moo ñu def lu bëri lu nekk si ñun bien que yenn saa yi ñu laale ñun ñëpp on le sait mais xam naa ne vraiment ngërëmal Serigne Touba bi bu ñu ko jëlee boole ci tuuti si suñu ngërëm amaana ñun sax duñu lu bëri mais vraiment ñun gërëm nañu njagandur sant nañ njagandur ndax participer na ci li tax ñun ñu mel ni ñu mel te participer na tamit ci li nga xamante ni mooy liggéeyu Serigne Touba bi nekk fii ci Dakar ay ci am na solo mu ngi noonu xam naa ne bu ñu tegoon ñëpp di wax ci moom euh, wax ji dina xaw a li fi def yëpp nit ñu ci teg seen bët mais ak yeneen acteurs nga xam ne tamit ñoo ne ci kër gi ku ci mel ni Bouba Ndour ah, ñu nekk ay nit ñoo xam ni mooy comme li di wax nekkul liggéey employé ak directeur ah. c'est famille boo xam dañoo nekk ci ah, gën a jug comme fi nga xam ne foofu la nekk mu bañ fa wàcc te kenn bañ ko faa fekk macha allah te duñu fa neex a fekk sax nag ay te nañu dem nga may ñu clip euh, ñu xool ko ti ñëwaat euh, comme ci comme comme comme ñu ngi wax ci rakk ji euh, nanu ñaan clip ki nga xam tamit euh, nu ne woowee nañ ko ko ambassadeur dégg na ko dégg na monsieur le ministre dégg na académicien dégg na li nga xam mooy président dégg na roi dégg na Grammy Awards disque d'or papay ñëpp tabarkàlla yàlla jàmmam yàgg yaa ngi dégg <laughs> yaa ngi dégg li ci des kay moom mooy ñu bàyyi ko rek mu way ñun ñu déglu te koy souhaité moom tamit une très bonne année 2025 astafurlah 2021 yàlla na jàmmam yàgg Hey, this yéen ñëpp tàccu leen Abba tàccu ñi nekk ci salle bi technicien yeeg caméraman yëpp Abba dirigé la tàccu yooyu foofu bariwu waaye nag tàccu cey lii Baye Niass ni ngay sàmmi yow sa bëggeel da ngay moytu ñi lay fexeel du ñu dem du waxi poubelle di la jéem a jaar ci feneen essayer de courir naan dëgg du ne nii teel li Pape Samba li bu mu jeex de xam nga bu virtuel waaye bu dëgg neexee yàlla rek lii du lu virtuel pour war la ni extraordinaire bi njaga dul mooy mu ngi koy wax léegi moom Didi boo seetaanee image yi naan lii biir si mel ni fu fees dell ak ay nit et c'est extraordinaire. dañoo foog suñu xel yi normal. ci live lañ normal nit ñi nekk seen i kër. ba ci nii nii dañ doon ba ñu jënd seen coca ñu jënd seen coca eh, et puis xoolal Youssou Ndour mi ñu def réew mi jënduloo ñëpp coca la suba mënu ñoo fay Youssou ñëpp jënd coca man asalam laa dëkk Castor laa jënde coca déglul yow man mi dem ba yëmbal laajte coca ñu yóbbu ma ay Fass Mbao yooyu may leen loolu coca non non non coca amatul coca comme champagne keroog. <laughs> wallaay wallaay wallaay wallaay en tout cas en tout cas c'est extraordinaire mais feccikat yi. Oh, maam Dumbe. nga def sa choix. Mm. waaw maam Dumbe. that girl was shaking her waist like. what's up. man dama laaj sama choix. sa choix kan la. baay. baay <laughs> kii choix am baay la man sama choix ci Demba Dangin la ne. ci Demba. waaw yow ce maam lu bëgg naa mais Demba daa ngi dox. man nag maa ci ñaar. ci góor ñi maa ngi ci Demba ci jigéen ñi maa ngi ci Feuz. non Feuz. Feuz moom mooy mooy da Balotelli ga. mooy sportif waaw waaw. pop pop Feuz. yaakaar naa ne ñoom seen histoire kër ñoom ñëpp a day fecc kii moom yóbbu ko ñoom Feuz ñu invité ma añ kii. yaan day fecc. magam dañuy fecc. ay rakkam dañuy fecc. seen jànq bi togg seen jànq nga keroog jànq bi ñoom laa dem que ñoom Feuz. waaw diikee yow diikee que ñoom Feuz kiy añ bi nii kiy teg. waaw mooy seen bi. waaw bu tegee eh kii kaay leen ñu añ. waaw waaw <laughs> eh kii eh, kër gi eh, leen ñu añ. waaw waaw gis nga xaj bi. bu ñuy dagg ñam ñi bekk ñambe korot ñoom seen waa xool kii waa ko ñoom fausi eh, kii añal basuur añal añal basuur añal añal basuur seen xaj bi bu ñu lekkee par di ko jox ay yàq seen xaj bi da waaw <laughs> kër googu aar la kër gi aar la nañ dem ci invité bi tabaarkàlla ngeen jéggal ma rek da ngay génn ci kër gi te doo nuyu Ndiaye Gueye sama xarit bi <laughs> tabaarkàlla ñu ngi koy nuyu ñu ngi koy nuyu la ñu am euh, salaamaaleykum salaam. yaa ngi am jàmm. waaw maa ngi ci jàmm bu baax. nuyuwanteel ak ngi nuyu. ku dal bokkal plateau bi. li ñu fi def yëpp mu ngi ne teg gis naa liggéey bi rafet na trop. merci beaucoup seen tamit rafet na trop. waaw maa ngi leen di seetaan maa ngi apprécier li ngeen def. Mhm. Ah, maa ngi nuyu waa Sénégal di nuyu famille Keita fi ma jugee. di nuyu famille Mbaye di nuyu sama borom kër mi ma àndal. Mhm. mi nga xamante ni ba mu jàppee ba tey bàyyiwul. waaw maa ngi nuyu ñëpp. mooy kan ki xees ki. waaw ku xees ki. yow mii doo dof de. ak ñi ma àndal. yow am nga yow mii yow yaa xam coof naka yow est-ce que doo moon maa ngay lébu yow mii xam nga coof de ku xees ki mooy sa borom kër. waaw yow ndeysaan di nga sonn nag. <laughs> genre xale jigéen ñi dañ leen di bëgg. te ñooy genre yi nga xam ni. te ñoom ñooy genre yi nga xam ni. duñu bëgg def nit lu gàntu. mooy genre yi gàntu yi. nañu billaay billaay ah, dafa am benn cameraman bu mag bu ne ci kër gi. Ah. dañu ànd man moom ñu dem ba Saint-Louis mais moom tam mënul gàntu. moom it ku baax la ku xol ba rafet. coof la mais. xol bee rafet mënul gàntu. te bu ko sol maa ngi koy nuyu ci am xaw ma lu xaw ma lu mu sol. <laughs> ayca nañu dem xooli clip bi nga xam ne clip bi diikee euh, ñu dem xool lamb sa poos nag la wax borom kër gi moom am na problème kii sëyal am na problème lambal sa poos nañ dem xooli clip bi te ñëwaat léegi ci plateau bi ayca. job job job xalaat bombal ki konkon lo jaay cere fonde caakiri bul mere kenn del firi dalal sa taabal jaay say ndugu waxu jàmbur bu ci masa dugg yore sa paan jaay say jën say jotaay nang cëgën jaay beñe ay te mu am na solo donc muy euh, clip bi nga xam ne mooy clip bu lambal sa poos euh, donc euh, mu nekk lu bees sax ah, ko moom mi nga xam ni mooy histoire bi ah lu tax làmbal sa poos. waaw làmb sa poos parce que euh, dama bëgg rek euh, ñaax jeunes yi. ñu liggéey ci seen réew. ok liggéey entreprendre. Okay. parce que nit ku ci nekk war ngaa xëy làmb sa poos fajal sa soxla sa bopp. waaw nga bañ a topp ci nit. waaw tamit nga def sa liggéey bopp daal moo tax ma ne leen bu leen xeeb dara. waaw jaayal sa gerte ànd ak fierte jaay soow bu ci boole coow jaay sa kafe te bul ko kafe ku ci nekk nag li nga nekk war nga ci am sa fula ba mën a liggéeyal sa bopp ba kenn du la yeb. waaw ci loolu daal laay wax pour gën a ñaax jeunes yi ñu góor góorlu bëgg li ñuy def gëm seen bopp. inspiration bi. waa diikee nom d'artiste là Lady K la woon mais les amis proches me disaient DK ba DK bi law mais DK bi tamit dafay am yeneen signification ci biir comme des bokange affaire yooyu noonu. ok DK moo la dugal ci musique bi ak li nga xamante ne mooy sa motivation. waaw sama motivation c'est que man euh, j'ai toujours aimé la musique depuis toute petite dama doon fowantoo bokk sama club anglais yi club école maa fa doon nekk euh, kii bi di leader chorale bi euh, j'aimais chanter j'adorais chanter waaw ci laa commencé développé amour ci hip hop bi. waaw ci laa commencé dugg nag. hip hop rek ngay def hip hop laay def ak variété lépp. variété waaw arène bi soo lépp. inspiration bi euh, am sa soxla ngay wax làmb sa poche. mais da nga dem directement ci làmb sa poche. man dama yaakaaroon sax histoire bi mooy da laaj ñu yéex laa jox. Hmm. Euh, nga attaqué noonu làmb sa poche inspiration bi. waaw làmb sa poche parce que boo gisee clip bi am na un moment donné euh, waa ji jabar yi mi moom yorul ba pare mi ngi dem toog toog ci trottoir bi di xalaat moo tax ma ne bul toog ci trottoir car il n'est jamais trop tard. Mhm. waaw da ngay góorgóorlu nga gëm sa bopp rek. waaw bul xeeb dara. ambulant lépp a ngi fi daal suñu réew mën nañ fi teew toog tekki fi. Mhm. moo tax maa ngi naan mën nga tekki toog sa réew teewul nga doon kaana. dëgg la yàlla yaana waaw kon tey nañu gëm suñu bopp toog liggéey ci dëkk bi. macha allah et puis écriture bi état d'esprit la rek. daa riche macha allah léegi. Mhm. Euh, euh, sa premier single la wala. Euh, sama première single la. Euh, parle euh, ci occasion bi maa ngi waxaale ni bi mooy sama première plateau. Mhm. télé. macha allah aywa aywa bonne année. bonne année Dike bonne année bonne année vraiment vraiment innové nañ innové nañ Dike Dike Dike Dike Dike donc nag donc nag li ngay def mooy nga wax say projet xam ne yëpp day antu incha allah. wax li nga xam ne moom ngay waajal ak yi war a ñëw ci kanam. balaa projet bi dama am contentement bu mag bokk ak yéen plateau bi. waaw franchement ma gis leen ngeen di entreprendre fii surtout Abba gis naa li nga def ci jeunesse jeunesse bi ñaax nga leen bu baax waaw projet yi ñu ngi ci waaw dañoo toog tëju benn ay at waaw pour bind bind nañ lu bari teg def nañ tamit lu bari ñu ngi mi ngi ñëw waaw bientôt di ngeen gis di ci yeneen kii waa yeneen facette waaw aja ah, promo euh, clip bi nga xam ne moom moo ñëw euh, lamb sa poste tey jii ku ko bëgg seetaan ci ban page wala ci ban chaîne lay dem pour mën ko fa xool. waa ku ko bëgg seetaan da ngay dem DK officiel boo ko mënul kii nga def lamb sa poste rek dina ñëw. kan moo def vidéo bi ak kan moo def. waaw vidéo bi Zëg moo ko def moo ngi noonu Zëg moom moo def vidéo bi. ak euh, ñi mu àndal Samba ñoom sanu ci ginnaaw waaw ñoom ñoo ko def ñoom ñëpp ñu bi ah, ngi def travail bu remarquable ci ginnaaw. ayca am na solo. ñu ci bon courage et puis beneen balaa ñu jël beneen invité nañu dem rek xool parce que plateau bi yanj na yanj boo xam ni am na ku ma bind léegi SMS ne ma seen plateau bi nii mu naay rek ëpp na donc euh, lii moom dafa neex bu ëpp ma ne kon nag nag euh, ñun sax suñu yoon da cee nekkul nag ku mu neexul toppal fële dafa mel ni am na ko wayoon de. ah, ah euh, kan moo ko wayati woon. Viviane na ko wayoon Pape Samba bu nekkee ci sa loxo rek euh, mën nga ñu ko may suñu plateau bi liñ ñu àndal Adja Vessel Adja Moussañ Fallou ah, ah ñi ñu àndal nga xam ne dañuy gunge bokk bokk na ci ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne fa tey ñu toog ay partenaire lañu ñi ñu àndal mooy ñi nga xam ne ñoo ñuy ah. ñu àndal mooy ñi nga xam ne parfois dañuy jàpp ci combat yi di jël seen wecc di ñu jox mhm. ba ci ñi seetaan suñu ay partenaire lañu am nii mu neex ci ñun ñun loolu ñu nekk ay leader nekk ca kaw kaw ku mu neexul. toppal fële. ma may ni ko. <laughs> ayca mi ngi noonu ku mu neexul toppal fële tabarkàlla li may expliqué tamit sànq eh, ci li xewoon ca ndar. loolu tamit ku mu neexul toppal fële parce que dañoo dem ndar man maa ngi fii. man damay feeñ ñu may gis may wax à la te waa Saint-Louis dañuy déglu RFM di seetaan TFM de trop xam nañ seen relation ak euh, Youssou Ndour xam nañ ni ñu mel moom ak ni ñu ko bëggee. Euh, waa Sénégal yëpp laay wax mais rawatina ak waa mais dañu may seetaan may animé ñuy bëggee ma xamante faak benn xale bu jigéen boo xam ni virtuel la lu xamante en ligne aba dama maa neex dama laa kii dañuy ñëw ndar mu ne ma bëgg naa laa gis jour boobu dafa waroon dem école awa gay mais demul école mu ne man la bëgg a gis ñëw fekk ñu fi ñuy defee weekend start ma ak samay caméraman ak samay technicien ak yooyu caméraman bi il a fait exprès hmm. 2020 bokk na ci li ma gën a métti lii may wax nii moo def ko exprès may def weekend saat musul def loolu musul pudi bu weex tar Eh. imagine caméraman bu yàlla dimbali. dafa bëgg weex mu am nu mel. mu nekk près du corps. près du corps def oh. jiinam def ay technique jël caméra bi daal di koy def amee. Eh. def ko fii ci épaule bi. Oh, loolu na jantal di daw xool ba pare mel ku takk fii kenn waxu ñun. TFM xam nañ ni bu ñuy waxal xam nañ su ñuy wax animateur bi la ñuy waxal fii ci ay kit oreillette. animateur naka la caméraman mën a indiaale kit oreillette ci kër kooku am na lu mu bëggoon. Mm. mu nekk ci kaw scène bi di daw di ay plan large serré semi semi-large euh, dans la euh, foule yooyu yëpp ma koy jël xale bu jigéen baa ngi toog nii di seetaan mais xale bi seetaanatuma de oh. te xale bi yow kii dama koo gis yow yow e coin bon coin tere coin coin oh. léppam quoi maanaam waaw kon ma kii yaa doon waxal yow caméraman bi di filmer xale bu jigéen bi ma pare émission ça va yow ça va enchanté gëj nañ gisante kii kërëb kërëb mosu ñoo gisante nangam ak sànq muy dem ne ma mën naa am numéro caméraman bi. oh, oh. quelle déception. ma ne ko ban mu ne ma ki nekk ci kaw scène bi te def body bu oh. ma oh. Mbada Mbada ki ma xam la. <laughs> ah ki ma xam la. doxaan na ko. ki ma xam la. do ma ne wax. Oh. ma wax tur bi déedéet ay lan lan yow lan yow loolu ay <laughs> salaamaaleykum euh, jëlal sa micro kii euh, doomi ndaanaan la. ndaanaan ay baayam ay ndaanaan ñooy ay ndijaayam Pape Ngagne mii ci kër gi moom ndijaayam la alaaji fay mi woyoon Samina mhm. Samina ba waalo bay ni sàmmiw ma jeeri sàmmi naa ba jolof beey bay ni sàmmiw ma jeeri ñaal bubu ngaari tey ma lambee si jeeri ñaal ma sàmmi ba bay boy ni sàmmi woo sàmmi naa ba néegi ngaay bay ni sàmmi woo sàmmi naa ba néegi nangaan bay ni sàmmi woo bubu ngaari tey ma lambee si jeeri ñaal mooy Kani Faye eh, non non awuñu awuñu ñun awuñu xam nga ñun awuñu e ndeysaan ndeysaan non non non daa mën a way xam nga xam nga et puis dama ko yéen loo xam ni mën naa war ni attanu ko eh, mu ngi woon démb ci Dakar ne plus donc def benn playback mais nit ñi toogoon foofu kontaan et puis sama téléphone bi di xaar ma ne ko suba da ngay ñëwaat ci weekend léegi sax da ngay ñëwaat ci weekend sad bi. mais loo ci xamul yow artiste boo ko fëggee 4 heures du matin boo ko wayloowee day way. tabarkalla macha allah doomi la. Ah, sa baatu baay bi rek laa dégg nag. sa baatu baay bi rek ngeen indil tabarkalla alaaji fay. Ah, yàlla yàlla defal ko jàmm yow ñu ngi lay souhaité nga ñëw ci jàmm. ñu bàyyi la nga te teg euh, téléspectateurs yi. waa asalaamaaleykum àddina asalaamaaleykum Sénégal maa ngi nuyu képp ku may seetaan di nuyu ñu toog ci plateau bi ñëpp di kontaan tey ci fi ngeen ma dalal. muy sama kër tonton. parce que Youssou Ndour sama nijaay mu ngi lay seetaan. di nuyu sama tonton Papa Ndiaye mhm. di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi may seetaan ak sama producteur Papis maa ngi leen di nuyu di ziar ñëpp. am na solo kontaan am na solo tey euh, ñun xam nañ kan mooy. Kanifay ñun mais tey da ngay wax ñi seetaan euh, yow yaay kan présenté wul tey. waa fay mooy doomu élage fay Faye Samina. Mhm. di sët ci Ndiaga Mbaye. Mhm. Euh, dëkk Géejawaay nekk doomu Géejawaay. waa di wax ni nag ndaw laa rek ne ci yoon mënuma damay jàng di wax ñëpp nañ ma bàyyi xel te di ma ñaanal. bu mhm. doomu Ndaanaan. secteur ndaanaan. parce que lii ay mm-hmm. que boo ko gisee. Mm-hmm. nii def nii nga xam ne ndaanaan la. donc nañu dem xooli euh, clip bi yaakaar naa ni mooy love metti na. love metti na waaw ñu xool ko ci ñëwaat ci plateau bi. xam naa xale yi dinañu waxtaan ak yow man mun maa waxtaan ak yow. parce que dama amee émotion. <laughs> ayca nañu dem xool ko te ñëwaat. laaj mooy ku ko bëgg seetaan fan ngay dem léegi dinañ ci ñëw mais Papis ñaa aar bi euh, kenn du moom. waaw kon noo Papis kenn du moom parce que dafa nangoo sonn ci ay artistes. man maa fa nekk ak ñeneen mais macha allah ni muy sonnee ci ay artistes. moo tax ñun dañuy def lu ñu mën pour moom. ñu ngi koy remercier parce que nekk xale. jot ci koo xamante ni macha allah ñëpp ngi koy wër mu jug pour jàppale la loolu defe naa sens la. kon boo dajee ak ku mel ni Papis Niang da ngay sant yàlla. ak Papis Ndiaye ñoom ña fa nekk ñëpp macha allah may kontaan ci ñoom jàppale nañ ma bu baax a baax a baax. am na solo am na solo mooy bi yow c'est naturel wala dundin la loo dund la yëg la. waaw bi suñu papa Youssou Ndour moo ko way. mooy son bi mu defoon ni wuy yaa nekk nii moom laa jël def ko parce que bëgguma commencer ci lu yomb damay xool koo xam ne artiste bu mag la nawloo nañ ko mm-hmm. mu def fi lu ne mm-hmm. kon damay ñëw jël wayam wayaat ko mu nekk loo xamante ni si ñëpp ko bëgg macha allah parce que ndaanaan la te def na fi lu rafet mais sa relation ak albinos yi euh, yan relation ngeen am waaw relation yu sérieux rek <laughs> parce que ñoom ay nit lañ comme nit ñëpp mhm. dañ leen di bëgg mhm. waaw man loolu laa gis moo tax nag ma am envie pour def ak moom. am euh, pour def ak love. waaw love en tout cas man je suis très. oui allez-y en tout impressionnée ci mm-hmm. euh, style bi. Mm-hmm. mais surtout mélodie bi ma dégg léegi mm-hmm. franchement sama yaram dara doon daw. Euh, way Youssou Ndour bi nga man du ma def lu dul di la souhaiter bon vent. di la ñaanal yàlla sàmm la vraiment parce que. yaa ko tëj ak ay jooy de jeex ay jooy na mais vraiment maa ngi lay souhaiter bonne continuation. merci beaucoup. choice of mm-hmm. um, yow yaa ko choose wala dafa am ku nekk behind parce que euh, létt bi nga ak mm-hmm. yooyu noonu si mm-hmm. clip bi ak euh, sa létt bi nii and stuff like that um, boo ko gisoon kon de kon de lu sol démb soo ko gisoon bàyyi àdduna. waaw comme kii ñuy def nii rek affaire affaire aar yi ñuy def tonton Papis moom nga dafa bëgg aar. Hmm. moom moo ñuy wax nañu def lii mooy xool li gën a li ma jàpp ak li nga xamante ne bu ñu ko defee dina neex nit ñi. mu ne nañ ko def après ñun tam ñu def loolu mareetu defaral ma waaw ñu ñu génn ci yeneen yoo xamante ni di doo koy gis lu bari. mais loolu day tax sax nga day génne sa différence en fait lay teel génne ci biir nit yi defee nii yow nga ñëw génn rek automatiquement tu tu restes remarquable quoi waaw mi ngi am na solo mhm. donc am na solo ñu ngi lay kontaane di la bàyyi euh, nga wax euh, promo euh, clip bi fan la ñu mën a dem xool ko fa ñan ñoo def li nga xam ni moom mooy clip bi ak son bi fan lañ ko enregistré même bu dee xam nañ ni Papis Niang ngi si ginnaaw. waaw son bi Papis Niang moo ko def euh, ñu ngi ko enregistré studio Biril fa lañ ko enregistré kii moo def bit bi oustaz moo def bit bi ñu dem enregistré ko ci Biril après tonton Papis def clip bi ku ko bëgg a gis nag boo demee YouTube boo defee Kani Faye loo metti na di nga ko gis su ko defee nag may wax sénégali yëpp ñu ñaanal ma maa ngi ci yoon te maa ngi jàng ñu ngi lay kontaan di nuyu ñëpp nag di nuyu waa Géejawaay kontaan naa trop Aba invitation bi ñoo far wax dëgg yàlla maa ngi ñaan li jëm kanam nuyu ñëpp macha allah boo tegee sa tànk tegal sa tànk fi nga ko teg. macha allah ayca am na solo dama yaakaar woon naa ni yow euh, duggoon nga ci ruq-ruqaat yi. Euh, defoon ay bon coin. est-ce que duñ ko xool. waaw ci bu leen di neex. loo gi. alors tey nag dama dem fi nga xamante ko ibbee <laughs> am naa lu ma métti de <laughs> boo <laughs> coin bi tey. dara desul tey koy gisee. boo coin bi fu ñu koy gisee. say coin ni mu bon fu ñu koy gisee. fu ñu koy gisee. lancer faal mën ngaa lancer boo coin bi Ah, tey damaa demoon ci benn coin bu spécial ci Fifty tapis vert merci donc euh, damay bàyyi rek ñu xooli élément bi en tout cas mi ngi nekk Mermoz ci deux voies wetu ci Ali Cheikh Béthio bi dañuy dem xooli élément bi ngeen xool tapis vert ni mu naayisee ni mu kuulee ñu ñëwaat léegi à tout de suite <laughs> euh, du pigeon accompagnement à avec euh, de la salade. Nous avons aussi des plats salés, rissol, composés de poulet avec du fromage, feuilleté hot dog et nem. ayca mu ngi noonu donc euh, am na solo ñu ngi woon foofu ca ancien Cap Asie ah. léegi ñu dippee ko tapis vert ñun amoon nañ ko euh, il y a deux wala trois ans donc indiwaat na ko. waaw vraiment tapis vert euh, mu nekk benn lieu bu magnifique boo xamante ne le personnel était au petit soin des clients macha allah dama leen fay digal di leen recommander ngeen dem fa parce que man j'ai apprécié déjà caméra yi bi mu fayee lekk naa fa ceeb bu weex. Ah, loolu ceeb bu neex boo xamante ne donc ils sont bien en plat yi nga gis ni mais aussi les plats sénégalais dañ ci bien macha allah donc je vous recommande aussi ngeen dem seeti seen plat parce que li ci gën a am importance mooy dañuy def livraison ah damay gis livraison bi ni muy dawee donc ça marche man dama koy souhaiter bonne continuation parce que j'étais fière bi ma demee foofu parce que gis naa euh, changement bi lépp rek dama koy ñaanal rek yàlla làkk ko fu yàq yeggul mu présenté ñu plat yu neex yi ngeen gis nii mais aussi dama leen di jox li ngeen xam ne mooy numéro bu baax bi nga xam ne mën ngeen fa woote soit ngeen dem sur place ñu defal leen plat yu nice wala tout simplement ngeen woote ñu livré leen ko démb bi ma nekkee fii di monter sama élément bi à 19h 20h comme ça j'ai appelé mais la livraison était rapide machallah donc euh, vous pouvez les joindre au 33 860 28 54 ou au 77 738 58 14 donc dañuy def livraison mën ngeen woote aussi ci numéro bi nga xamante ni mooy 33 842 00 48 tapis vert laa nekkoon gars yi dama leen di recommander vivement ngeen dem fa parce que saf na dibi saaf beek oh. yépp mais ah seen jus locaux yi nag seen dibi saaf. ñoom ñii waa tamit verre la. yaa ngi fu ma xam. dafa dafa neex ci suñu kër la. ba pare ah, li ma li ma ah, remarque si ah, man xaw ma ko personnally mm-hmm. waaye bi Serigne Saliou laa ko parce que <laughs> lundi bi passé <laughs> mm-hmm. la journée Serigne Saliou bi biñ kiiwam bi dafa def 24 heures boo xamante ne ñëpp dañuy ñëw gratuite lekk naan for free mm-hmm. waaw mu doon loo xam ne dafa raar nga gis ku ko def surtout nga nekk ndaw réew parce que yaa ngi naan toujours ak damay jéem ut damay jéem a nii bëgguloo perte dara ba den ku ubbi restaurant am nga dafa tànt ci biti for people able to ah, loolu man. man sama xarit la yee man sama xarit la mënuma cee wax lu bari ndax boo loo wax lu uudee wax ci. bëy rek ñu ne jaajëf ah, man sama waay la mais lii muy def lu mu miin la. li muy def lu mu maîtriser la parce que Eden Hazard euh, lay àndal. donc lu hasard lekk moom mi moo ko préparé moo ko jox. Mhm. na kii xam nga foo dem xam ni moom lay def. Euh, la ci moom. dañ koy dañ koy ñaanal rek bonne continuation. parce que man bi ma fa demee gis naa xarit yi fa nekk yëpp célébrité ki ñëpp dañ fay nekk. Mhm. donc mu def teranga boobu li nga xamante ne bi def na ko di séddale ay lekk la man daal Fifty dama lay souhaiter bon vent parce que jàmbaar la abaa. Ah, dafa innové euh, parce dañu daan préparé préparé nii euh, ci 2021 bi euh, donc dañuy dem ci ruq yeeg ruqaat yi ah nañu ñëpp xaar lu waaye am rek loo xam ni da koy wane bu nu ñëwee dinañ ko wane ba mu fees mais dañu ne awa dañuy dem ca Gambie daa defee def weekend sax mu ne avant boobu moom day indi Gambie ñu def ak moom weekend sax awa gay yaa ngi noonu waa kër gi famille léegi noonu waa Gambie ngi noonu Abbas a ngi noonu Chéri Càllal ak Fatou ah, ñoo Khady Faye Ah, ñëpp a ngi fi. mais awa est-ce que xam nga man waa Gambie ah, dama leen bëgg Aba mi ngi fi. kan Aba. Oh, loolu laa wax ni. ak Samira Cheikh Diallo sax nee na léegi. Gambie ñi ñëpp ay Gambien lañ. Gambie ah, xaw ma lan la mosuma fa dem mais dama leen a bëgg. mais wuy ma Gambien nga. est-ce que xam nga kii Gambie la jëm. ndax ah. ok léegi. may na la ay waay may na la waay. Oh. bu dee daa am lu ñu war a yëg oh. nañ ko teel a yëg. ay waay ay waay may na ay waay may na daa am lu ñu war a yëg. daa am lu ñu war a teel a yëg. bu ma ko wala nu mu demee. mbokka. Mboka Awa Gaye. Mboka. <laughs> ay nga waxtaan ak sa gan gi Awa Gaye. Eh, nag eh, ma kontaan parce que ki ñëw fii nii eh, ku ma xam la. Mm-hmm. xam naa ko bu baax a baax a mm-hmm. baax ndaxte. Um, um, what should I say say hello first of all. am am yoo góor you yoo ba pare. <laughs> ok balaa loolu dama nuyu askanu Sénégal bi yëpp. Uh-huh. di ñaanal ñëpp ci at bu bees bi 2021 gën 2020 mm-hmm. euh, yàlla may xaalis may wér mm-hmm. may yokkute ci ci plateforme yëpp yëpp yëpp mm-hmm. euh, euh, di wax na rek comme awa yow moom xam nga sama sama seex nga. bu <laughs> yàgg la du du tey. Eh, di wax kër gi famille yi. borom bopp yu tàcc yi. ñetti bopp booyu gàtt ko leeral ci waaw il faut ñu am time bi pour leeral pour leeral ko. soo li may wax kër gi famille comme nekkul groupe bu bees. start nañu since 2010 depuis 2010 yi gën a am doole. da ngay kër gi famille nga door a lim ñeneen. so yàlla def nag. ñu ñëw Sénégal benn suñu benn grand bu ñuy wax Bas. mais lan moo tax non non avant ngeen ñëw ba koy def ay blessure ak yoon. ñu bari dañ foogoon ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay. Oh, because that's how connected and close they are. Euh, Barhama au passage ma koy nuyu bu baax parce que ñoom ñett euh, dafa am benn kii bu ñu am woo xam ne dafa garaaw man I was shocked I was surprised lan la lu xew parce que yow you've always been the voice of the group. waaw léegi kër gi famille yéen ngeen jël ko euh, barxaama benn nekk barxaama lu xew loo leen def xale waaw dañ dañ dàq barxaama xama barxaama daw non daaxuñ kenn bëgguma woon wax ci. ci problème bi léegi nag il faut nga wax ci problème bi mais nañu dem xool li nga xam ne moo ñu fi indi tey. clip bi nga xam moom ñu defal promo bi te ñëwaat léegi nga wax lu tax ngeen dóor ko ba gaañ ko ba toj R4 yi nga xam nga génn ko ci groupe bi naay sut nañ dem xooli chocolat te ñëwaat léegi ci place. Uh, waaw ay na one time xëy na duñu ko may. bon ok clip bi uh, maa ngi doon wax ne uh, nit ku ñu boole ak waa rock ci musique parce que actuellement ñu ngi rock ci musique fu euh, ñoom Chérif ak Diop Sobe nekk suñu benn grand mu wax Passané moo ñu boole ak ñoom. ak Mary Ndiaye waaw Mary also she's there mi ngi mu ngi mu ngi dayee foofu noonu Jeyla mu ngi fa mm. and so many artists mu ngi fa nga Jeyla sax songom bi mu njëkk a def damel bi man maa tëgg a dut bi Chérif Diop sa beneen Wally Seck man maa mixé sound bi he has to yow lan da nga ñëw Sénégal pour liggéey ak am na the head <laughs> <laughs> bi ñëw Sénégal pour showcase talent bi Sénégal bi am tey jii suñu fi toogee tooguñu fi Sénégal tooguñu fi Gambie kese ba dañ toog pour Sénégal bi wane ne Afrique Sénégal bi am nañ ay ndaw yu xarañ yu mën la ñuy def mm-hmm. loolu moo ñu fi indi ndaw suñ ñëw nag dañ nekk ñu ngi doon liggéey bu ñëwee def nañ Sénégal deux ans trois years dañ toog rek nga mhm. ci liggéey bi lu mu dee ree liggéey nañ lu mu dee dañ ñetti wala ñeenti album mhm. kon ñu ngi commencé di promouvoir album yi benn bi moo nekk de first single mhm. bu ñu def man ak DM bi ñoo ànd mais nag comme plateau bi da ne kenn nit ngeen mën a jël te mënuñoo ñëw dem mënumaa dem fenn bàyyi sama doom day ñëw fa nekk waaye mu ngi ci ginnaaw toog waaw di di yem ñëwal bi yem waaw bi yem come here come ok ok pour man ok euh, dara xapunul Euh, things yi ñu start yi bëgguma wax anything about that boo da ngaa gis ne like ok bu ñëw start yow xam nga mm-hmm. dañu start with zero di grand di grand but bu ñu demee ba like ok ku ci ne tour commencé di am mm-hmm. after une crew man du nangu yow ngay toog rek nga dem def sa plateforme bopp def say event bopp def say song bopp aɗa ene de ñoɓa ko negditade soko laaje defal ne man afa ah, solo carré to fulfil solo carré to fulfil understand ñun tamit exact man iñaanuma mhm. man soo gisee ma foom fi Sénégal laa jàngee mhm, mhm, dem naa première ma bàyyi jàng ma delluwaat Gambie kon suñu tuddoo ñun ñëpp di nuyu sama papa ak sama yaay ngi passé di leen ñaanal ñu gudd fan lool waaw so comme moom loolu la di sayt tamit iñaanuñu ko nit ku nekk dañ koy bàyyi mu ñëwaat na mu am na ci ay taw dem na Europe ñëwaat kon ñu ngi sant yàlla baax ñoo bokk ndey ak baay. ñu ngi lay siyaat. maa ngi leen di delloo siyaat da <laughs> di nuyu waa Sénégal àdduna bi yëpp di la ziar Abbas Dress ak sama sista xam ne gëj nañoo gisante ak yéen ñu fi des yéen ñëpp euh, ñu nekk euh, ñoo xam ne euh, tubaab fakala macha allah in Gambia ñu bëgg leen torop. Mm-hmm. respecté leen parce que doo leen dégg ci leneen lu dul musique doo leen gis ci leneen lu dul woy mm-hmm. saa yoo leen gisee ñu ànd ñoom ñett ñooy ànd ñoo mm-hmm. daan ànd waa léegi ñaar la ba den man li ma xam mooy ñoom ñett ñoo daan ànd léegi ñoom ñaar ñooy ànd euh, ndaxte ndax léegi barxaama li mu dem amut lu mu wàññi parce que tamit euh, ñun ñëpp xamante nañ yee am na benn affaire boo xam ne daf ko amoon si groupe bi euh, let's xam nga soo leen di ànd ñun am na koo xam ne maybe dina kaana shine mm-hmm. out barxaama dafa kaandoon a shine out ndax loolu affectut leen yéen or how is it like non man mën naa wax ne affectut parce que mm. ñun ñëpp école lañ génnee mm-hmm. xam nañ musique bu mm-hmm. baax et mooy loolu am nañ talent bu baax a baax bi ñëwee fii tamit fekk nañ fi ñoo xam ne waa Rakk Team xam nañ musique bu baax a baax a baax da ngay gis ne lépp day jaar ci yoon te affaire yi bu jaaree ci yoon rek jugee ci xol rek day dem ci xol. am na solo ay ci mm, mm. na solo donc na solo ay ci am na solo ñu bu baax a baax euh, promo clip bi tey euh, ku bëgg xool li nga xam ne mooy clip bi fan ngay dem. waaw actuellement ku ko a ci chaîne Ziz Art Aziz Aar moom moo réalisé clip bi en même temps ak moom mi toog nii mhm. day réalisé day gis ne produit son bi mën naa ko mën naa ko mixé maa ko masterisé maa def prise yi mhm. moom vidéo yi ñoom ñoo jël yeneen séquence yu bari ñoom ñoo ko jël soo suñu ñëw Sénégal xëy naa ne mun naa ne is euh, euh, a is a is a dream come true blessing la mhm. yokkute la ndax six months balaa ma jógee Gambie mënumaa tëgg bit diggante bu ma jógee Gambie ak léegi nii tëgg naa fi bitu ay artistes yu mag yu bare bari mm-hmm. tey du yomb Mara ak Adam man maa ko from the scratch zero ba hundred ak mm-hmm. ñeneen ak ñeneen loolu sant yàlla la so Barhama tamit suñu sama rakk la maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla fa yegg soxoru mu macha allah macha allah en tout cas ngi leen di kontaane bu baax I'm so na eh, solo am na solo am na solo <laughs> ah. yéen ñun ko temps bi mayoon dañuy bàyyi euh, gars yi euh, euh, yooyu mais temps bi moo xat ba pare am na yeneen invité yoo xam ne ñu ngi si ginnaaw ba pare sama connexion jeex temps xam nga yëpp ay problème la sama connexion jeex nit ñi ñu ngi lay seetaan am nañ sa numéro ah. mais duñ la envoyé orange moo ne pour nga mën a jënd connexion te xam ne da ngay yow ak sa connexion ngay liggéeyee xam nga yooyu yëpp na ma yow na la xaarim temps dina la connexion yaa ngi dégg yaa ngi dégg sonal saas ne te xaarim xaarim temps ci ci sama xarit daa lakkale daa lakkale dafa lakkale ay ci ay ci ay ci am leen jàmm nañu dem nañu dem xool euh, clip ki nga xam ni moom mooy euh, Tati Faye mu way li ma moom ah ñu xool ko te ñëwaat léegi ci plateau bi yow le temps ñu may envoyé li nga xam ni moom mooy crédit ñu daal di koy jël moom ci plateau bi Khady Faye suñu invité la euh, le temps téléspectateurs di envoyé crédit ci sama numéro bi nga xam ne ñoom ñëpp am nañ ko ayca Khady Faye li ma moom moom ak euh, ki nga xam ni euh, mooy Khady Faye euh, wax naa ni bokk na ci invité yaakaar naa ni invité yi jeexaguñu 2021 premier week-end start Awa Gaye occupé nga nga trop <laughs> maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax soxna Khady <laughs> maa ngi lay delloo ziar. Mhm. ginnaaw bi ma sant yàlla. julli ci Seydina Mouhamed sang-sang yi mhm. daal di ñaanal sama ñaari waajur yi yàlla nañu xippee àjjana may ñaanal sama sang bu tedd bi Serigne Abdou Karim Mbacke ma Makarimal Akhlaq mu yàgg fi loolu te wér. ayca di kontaan ci invitation bi lool. ñu ngi lay kontaanee tey. di euh, nuyu sama yaay ji Fatou Guewel. Uh-huh. ngumba mi ci waa li mu ci Mbuubaan bi dem ba Mami Sall. mook sama yaay seen ñaar yaay bokk. yaay bu ma nekk Thiès. Eh, yaay bëri sama rek ju baax jooju yaay bëri mooy Serigne Ablaye Dieng Ablaye la dëgg la donc am na solo tey eh, da ngaa jël li nga moom wala da ngay laaj li nga moom wala da ngay seet li nga moom jox ma li ma moom mhm. koy laaj am nga yéen moom mooy loolu non non bul ne ñun góor ñi ma ah. li ma rek eh, li ma moom li ma li ma moom ay di nga ne ko lan la moom li mu moom xam nga li nga moom mën na doon statut mën na doon titre mën na doon lu ne daal dëgg la maanaam ma jox ma li ma moom ba ëllëg kenn duñu reetaan mm. parce que da bëgg nit ah. bëgg nit mm. xam nga euh, mooy loolu daal maanaam na la ko wan daal mu wane li li ne ci moom daal mu jox la li nga am ci moom mu jox la li nga xamante ne voilà mu xam sa valeur mm. mu xam sa valeur merci mais pourtant mën nga wax lépp de garaaw sama xol bi moom ma tooñ ba ma tëx gumba jox ma li ma moomay ala kenn duñu reey ñun ñi fi toog ñëpp am nañ lu ëpp 18 ans wax ñu lan wax ñu aba ba ma bëgg du doon ka neenooy jigéen ju neey saa yoo war nga seet war nga xool tànnal sa baayu doom. xam nga ñun ñi fi toog nii yëpp man am naa euh, vingt et un ans vingt deux ans. ñi fi eh, toog ñëpp eh, am eh, nañ ay trente cinq ans quarante ans. léegi yow fi ñu toll nii euh, lan nga manqué yow looy laaj nii lan nga bëgg moom ko te joxuñu la ko lan la. abaa lan nga moom lan nga looy demandé lan ngay réclamer. non da ngay wax parce que xam nga mën naa mun na fi ne gaañ. waaye euh, maanaam euh, boo déggee woy bi nekkul man. Uh-huh. dama ko woy pour sama moroomu jigéen ñi. dañuy ànd ak góor mu leen di négliger. Euh, noonu la demee. oh la la la war a jox attention bi la la war a jox wala xaalis bi wala. non xaalis dafay jeex. wala waat. mu ngi ñëw gor laa soxla. gor mbëggeel cofeel bu mag. <laughs> Aliou Faye de bu dee xaw ma li ngay laaj man yàlla na yàlla rey. man de ni ko waxee nii. léegi yow dimbali ñu yow mi xam nga. waaw waaw bu dee moom mi ko xam te bëgg ko da koy laaj mënu ko wax. man mi naan nu ma koy waxee. <laughs> Ah, <laughs> biir biir jàmbur la donc tey euh, nga inspiré wu. way ni nga xam ni vie privée la waaw. nit comme yow nga amee sa vie privée sax samedi matin <laughs> kenn bëggoo ko ci wax. kookaan la yaa ngi Yacine mais di samedi 6 heures du matin yéen xam nga loolu seen vie privée la. ak yow. <laughs> ay di di ndeysaan moo ngi jooy amoo ko oh, sant yàlla léegi léegi <laughs> léegi euh, fi ñu toll ni inspiration euh, woy bi ak euh, arrangement beeg maanaam ban studio la ak clip bi kan moo ko def loolu fa nga ñu ko waaw maa ngi defee single bi studio Lamp Pikine fii nii. Mm-hmm. Mm-hmm. amay kontaan ci moom lool waaw arrangement bi nag euh, sama benn xarit moo ko def waaw sama benn càmmiñ boole maak moom. Mm-hmm. defal ma ko waaw. macha allah yàgg noonu. Mm. maa nekk doon buur bi ma ko déggee mu yuuxul léegi sama xel dafa dem ci Ami Collé. kon baat yow baat bi Ami la ma jox macha allah. noonu la noonu la donc tey wax ñu say projet lan ngay wàcc album mooy waaj a ñëw wala. waaw maa ngi ci album bi maa ngi studio dama génne li xam nga. nañ euh, naan nañ naan sëñ Fall leen tépp tépp gënu euh, maa ngi génne naa single bi euh, def naa clip bi ci kàttanu yàlla du yàgg dara album bi daal di génn ma ciy kontaane sama benn càmmañ bu baax Xaadim Samb caaraag mbigaan ajratu gàmmal la ni woowe sa yaay fara junjung may sa ten yaasin eh. daawur ngooni maayoon mi ci na nuru seeg nu xaalisi baayu dong mu ndaaw man di bàkk naa xaadima yaa ma dooleel borom Cees sama waaje eh. sëñ Abdou Karim Mbacke borom mag yaari maal axlaa alaaji Fall ñuy baayam xaadimul Mustafay maamam góor ga deman ga bang jeeri maayam bi jeeri kotu daw mi sangub Bamba yaay yaay jenn ah, man jàmbaari Cheikh Abdul Karim Mbakke borom Makaarimal Axlaaq tuy moo ma jële ci lëndëm dugal ma ci leer def ma yaay faal bi ma doon ay waay bàyyi sëriñ gala sindi di wala dagg de eh, nabu siin sama sin sin bee mënu ma ko dagg kii kii fi mu nekk baax nabu siin sama sin sin bee waaye nayi ware kon Issa Ndaw Ndaw Sandine aram faqar pulum du kumaan jaawale woo ma. yaa ngi dégg xanaa moom mu xam ne xanaa moom mu ne rek mais man du ma ko dagg xanaa kay moom Khady Faye mu xam ne ci temps la ñuy liggéey mais mu nekk ni baax na baax goo xam ne man duma ko dagg tubaarkàlla tubaarkàlla waaw ay ca kon Khady Faye ay ca billaahi billaahi man de bàkk naa baax de laa bëggoon nga man de bàkk naa yusuma jigéen du bàkk nga ku sa bay eh baax ci kum nekk nii maa jigéen maa jigéen ci sëtu maam mari seen bi la ne doomu alaaji ilimaan nduur bi nga ne doomu yaay ndey soxna mbubbi bokk ak njaga ak buuba ki bokk ak ibu léegi nag léegi nag fii moom boo fi duggee boo fi duggee jaga nduure di jaga nduure adi fay adi eh, eh, nga Pape Samba xam nga Pape Samba yaa fi bëgg ndax kii fi du ma ko dagg yuus na ma yaa ko dagg Pape Samba jëlal ses responsabilités ya ah Pape Samba nee na temps bi ak yeneen invité yi nga xam ne ñoo toog di xaar mais fi nga nekk ci Youssou nga xam ni Mamari Seen ay maamam nga xam ni Siré ay maamam Alaaji Ilimaan bayam ajaratu nday soxna yaayam moo bokk ak Ibu bokk ak Njaga bokk ak Buuba ngoone ay jigéenam nag abee jigéenam ki nee jigéenam waaye ki nga xam ah nday seene booy jigéenam ah, ah. kooku moom mooy laa lion de la Médina kenn du moom léegi nag fi ñu toll nii uh-huh. bàyyi biraan ak séegi bàyyi corok soxna bàyyi Nelson tabarkàlla kii fi mu nekk man duma ko nag académicien bi lay waxal lu baax xam. ndeysaan bu ci ñëwaat nag ah? mu jàppale. woo Ndiaga Ndouro. ar bi dafa métti di nekk di daanoo ko jóg. cam bëgg ñëpp jàpp ci. Mm. waaw. li daal laa wax yaay Fallou sëñ Abdou Karim Mbacké. Mm. Mm. xam naa ne daal sa voice bi is just amazing. amazing. léegi amazing boobu euh, est-ce que. di kontaan ci sama <laughs> <laughs> staff. sama staff sama euh, groupe fans club ngéwél gi Khady Faye ñi ma dooleel. maa ngi kontaan ñëpp di kontaan ci sama téer am di Moustapha Cissé. ah dëgg la dëgg la xam ne li ma daggal du ay. ay lii du xaj xam nga tey boo defee nii man ma def nii. daa yi samay kawas. xool leen samay kawas. Ah, moom laa leen wax nii xoolal xool leen kawas yi. xam nga tamit xam nga Khady Faye lii du fi xaj léegi fii bu doo toogaat léegi tay ji waxal fi ñu toll nii euh, li nga xam ne mooy projet yeeg yooyu yëpp après ñu ànd ci dem. waaw hmm. projet hmm. mooy euh, clip baa ngi nii album baa ngi ci kanam. ak hmm. leneen ak leneen loo xam ne surprise la. di kontaan ci waa Thiès gépp nag parce que Thiès laa juddoo fa laa yaroo fa laa fekk baax. ah yow ñu du Thiès nga. Ah, baax na baax na ayca nañu dem xooli beneen invité bi nga xam ne moo war ñëw ci. merci kontaan Seb wey na sama xol donc Pape Samb may ñu clip bi rek ñu ñëwaat ci weekend sa toog yeggali ayca ayca Seb. si xool lay jóge dem si beneen lëfeel nit ñi yaa commencé xel aja bale kaay xel ñëpp nga jox ñëpp ñu naan joxal ñëpp ñu naan waaye Pape Samba mii xel daa mar Pape Samba kaay kaay kaay sàcc amu fi kaay eh, bu fi jiñ kenn sàcc dañoo am gan yow tamit bal doo defee suñu image quand même bu ñu la sàccee nga calme ba kii c'est bonjour c'est <laughs> oui super ça va bien c'est day wax tubaab de wala seeb dina wax olof ah ndegel wolof tuuti rek. dëgg dire baraba mais plus tuuti rek. pulaar oui pulaar pulaar. ah pulaar nga dégg français anglais. français anglais pulaar. un peu wolof. vous venez de Nice. Merenke. <laughs> oui lii. bon en tout cas je suis fonctionnaire italienne mais tamit. Oh, oh, oh. presque huit ans en Afrique. yóbbante la bëggoon Koli. di di Koli la bëggoon Koli. Sénégal Guinée aussi. Eh, so what do you think about the song. temps bi Pape Samba ne ngeen jox ko cër daf ñu attaqué. maa ngi jégalu maa ngi jégalu. Ah. ndeysaan kii yee jooy kii moo gis tubaab bi rek ni ko. foo jógee Nice. ndeysaan moom pour yow tubaab yëpp Nice lañ dëkk. koo gis dafa ni Nice la dëkk dafa ko yóbbu ba koo seepee. ay ay waay pour pour moom tubaab yëpp Nice lañ dëkk. sama xol sama xol le clip a été produit par euh, Arbi Management. Mhm. Arbi ils sont bien mhm. again. So why did Je parle français oh, Donc lan moo la indi Sénégal, euh, qu'est-ce qui t'a fait venir ici euh, au Sénégal? Ah, alors en fait, euh, j'ai commencé ma carrière musicale d'abord Guinée-Conakry. OK. Ah. j'ai sorti ma chanson Fouta Dialon qui passait à l'international, RFI Africa numéro 1, après Guinée, toute l'Afrique mais aussi en Europe. c'est aussi aux États-Unis, en Chine, etc. Et puis, euh, j'ai dû interrompre ma carrière pour un problème de santé euh, qui a touché de ma famille. Mhm. Et euh, j'ai pris la guitare, j'ai composé mon nouvel album et on est sur les rails pour sortir un euh, nouveau Donc, là, je suis là parce que je vais faire quatre clips. J'ai fait aussi un autre clip qui s'appelle Mignan en mhm. qui est sur YouTube. Vous E et, enfin, e musique en anglais. Vous allez trouver ça sur YouTube. vous vivez à Dakar, vous êtes basé à Dakar en fait je navigue entre euh, la France, le Sénégal et la Guinée, okay. Conakry. Et vous êtes un amoureux de la culture africaine, c'est ça Alors en fait ce qui est particulier c'est que quand j'étais petit, 5-6 ans, Moi, ma mère m'avait offert un globe à l'époque. Ah. Et je voyais l'Afrique comme ça. Et puis, elle était abonnée au magazine Géo. Okay. Et du coup, je voyais le, euh, les lions, les rhinocéros, okay. ces ceci et cela. Et donc, je me suis dit qu'un jour, j'irai en Afrique. Et puis, bon, j'ai vécu dans, un, dans une ville où tout le monde est mélangé. Noir, euh, métis, arabe, blanc, chinois, enfin, enfin asiatique plutôt. Mm. Et du coup, Euh, je n'ai moi pas cette notion de couleur. Mm -hmm. Comme on peut voir, parce que là, bon, c'est quand on voit que je suis, je suis Toubab, je suis Porto, ce que tu veux. Mm -hmm. Mais moi, je ne vois pas qu'il y a des noirs parce que je suis partout où je vais, je suis entouré de plein de populations différentes et j'aime mm -hmm. ça. Mhm. Mhm. C'est ma vie, mhm. en fait. Je donc c'est quoi Donc c'est quoi le projet Donc les gens ici, ils veulent le chanter en français, en anglais pour aller euh, à l'étranger. Ouais. Et toi, tu veux chanter en wolof. C'est quoi le projet En fait, c'est pas ça. Tu sais, euh, moi, j'ai pas, je, moi, je chante en six langues, mhm. dont quatre africaines. Pourquoi Parce que j'ai vécu 7, 8 ans en Afrique, 8 ans à peu près. Okay. Un, un, un, an et demi à peu près au Sénégal. Mm -hmm. et le, le, reste, j'ai fait ça beaucoup en Guinée, Conakry. Mm -hmm. euh, ah, je suis quand même assez célèbre là-bas. Mais, mais, mais, mon principe, c'est quoi C'est. Euh, moi, je ne vois pas, en fait. Euh, enfin là, plutôt, je vois la richesse, là où elle se trouve. Un, Africain qui vient en Europe, qui va chanter en français ou en anglais, c'est normal. J'ai même vu des Africains qui, ont chanté en mandarin et qui, sont en Chine. Moi qui suis venu faire ma musique euh, en Afrique, il est normal que je chante aussi dans les langues africaines. et puis j'ai eu la chance d'être formé par Silan Kouchi et par la famille de Mbadi par les okay. Ce qui fait que je Euh, je peux chanter comme un griot si je okay, formé pour ça. Ok, comme tu es ici que euh, tu es français, euh, comme, tu le dis, est-ce que tu es prêt pour euh, faire le We Are The World avec les chanteurs sénégalais, les Wally, les Sidi Diop, We Are The problème. sénégalais parce que à ces temps-ci euh, c'est un peu euh, compliqué les fins d'année euh, comme euh, <laughs> comme si vous avez compris donc euh, est-ce que vous êtes prêts pour euh, unir les chanteurs, les chanteurs sénégalais, sénégalais. Ah bah, et faire le sans problème avec plaisir kii dégg na wolof. wax ju sew am na ci tubaab ak ci non non non non c'est que li ma bëgg wax ci tubaab la amuñu. <laughs> Euh, comme temps yi non non temps yi wax ji euh, léegi nag dama naan temps yi. comme les paroles messes les paroles messes. <laughs> ok ok est-ce que est-ce que tu es prêt pour réunir les chanteurs sénégalais et faire un We Are The World ici. bien sûr. Mmh. c'est le cool hein. ouais, no problème. donc vous voulez ou. <laughs> c'est comme tu veux c'est comme tu veux. Ah, on allez faire un truc ok. je vais mmh. Mmh. Ah, une improvisation ok ok ok. non non non tu improvises rek. Sénégal Sénégal ñoo fa. 계시는 가 가이 가이 아프리카 가이 사우네갈 가이 다카르 oh oh très belle vidéo hein. La vidéo est magnifique en plus avec une très grande actrice que j'ai vue dans votre vidéo qui s'appelle Mame Siré Ndiaye, c'est une très grande actrice hein. Donc euh, je vous souhaite aussi bonne continuation c'est vraiment on vous remercie hein. Mm-hmm. Merci d'avoir passé. Merci beaucoup. Allez Seb, jaaraama ayca nañu dem euh, ci benn invité bi nga xam ni moom moo ci topp daal koy jël mu ñëw ci euh, plateau bi euh, fekk way na sama ajana ñu xool ko ñëwaat léegi ci plateau bi ayca yeah. jëli nga moom jox ma li ma moom ma jëli ma moom jox la li nga moom jëli nga moom jox ma li ma moom ma jëli ma moom jox la li nga moom jëli nga moom jox ma li ma moom ma jëli ma moom jox la li nga moom xam nga ko la jaloux yaa ko tey sama aljana nana yaay sama aljana nana waaw yaay sama aljana nana my honey bul ma daw jege ma sunu gu sulee mel ni ku yaay sama ajana na waaw yaay sama ajana na. Draflex mon ami Draflex il est là c'est un c'est camarade nous sommes des camarades donc fii euh, sama kaasu dama ko tegoon fii. dama fay fii dama sànq nga ni ma sàcc amul fi ah. kenn sàcc. ok sama àjjana ak Draflex Dio euh, maa ngi lay ziar jëlal sa micro. ok. les en national et international planète terre mer sur air et tout. Eh. maa ngi dugg ñëpp dinaa ne lépp fekk. Eh. yaa ngi ci jàmm ndax. maa ngi ci jàmm. Pape Samba est-ce eh, que doo ñu mayaat euh, clip bi nu mën a waxtaan ak euh, Draflex ci suuf après nu doog a julaat ci kaw. ok ok mais Dra euh, sa nuyoo bi il faut nga nuyoowaat quoi ah, mais après dañ la wax. waaw Pape Samba clip bi indi sama aajo. waaw yaay sama aljana na waaw yaay sama aljana na waaw ñu ngi am suñu plateau Draflex eh, nga xam ni moo way sama àjjana ñu bàyyi ko mu nuyoowaat ak téléspectateurs yi mais téléspectateurs yi quand même. waaw maa ngi nuyu yëpp ñu ngi seetaan si TFM waaw di la nuyu yow di nuyu plateau et tout ah. di nuyu jinne yeeg pigeon yeeg ñëpp ñoo xam ñu ngi seetaan daal lépp loo xam ne yàlla sàkk na ok euh, donc euh, ban genre musique def comme yëpp maa def. Ah, euh, ban genre moo ko tey. yow xalaatoo def duo ak Pawlish a bokk bi. non non <laughs> kooku kan la sax. à tout moment mën na laa tontu nag à tout moment da lay tontu <laughs> léegi léegi yow fi ñu nii ban xeetu musique moom ngay def ak lan moo la indi ci li a xam ne moom mooy bi. Eh, musique bu may def. Mm-hmm. Euh, au début dama def rap. Mm-hmm. dirty south léegi maa ngi ci afro bi. Mm-hmm. mais créé sama propre style musical bu ngeen gis nii mu tudd afro galsen. Euh, aussi boo gisee son mu def ni sama ajana afro la en fait. c' est cent pour cent afro bi. comme Nigéria boo gisee remix. Burna la Onzolo euh, moom laa def sama. ajana moo doon xeex ak Crank ci wàllu nuyu bi. xeex na xeex bu métti. ndax ah, boo fekkee moom boo fekkee ak Davido xeex nañ bu barki barki dem boo Ndiaye. ah man man kii moo doon xeex. ah man ah, ah. Burna Boy. ah Burna Boy waaw. ah Burna Boy waaw waaw bon peut-être. yeggali yeggali hmm. moo tax ma def clip bi sama ajana. Hmm. pour euh, juste pour parler de l'amour parce que tout est amour dans la vie quoi. Hmm. boo gisee. boo gisee clip ma clipé ko sax bëgguma ko clipé sax parce que am na yeneen projet yoo xam ne mu ngi ñëw mhm. boo gisee clip mu mujjee génnee mooy caméra bi envoyé woon naa la ko yow mi ba nga déglu koy tout ne nga partagé defoo si dara te mhm. mere naa la si mhm. mais du garaaw après nag sama agenda bi ndax géli géli ci waa bëgg ko vraiment les les demoiselles et tout moo tax ma clipé ko jox leen ko ñoom pour ñu partagé ko ñu am un million de vues en une semaine incha bàyyi naa ko seen loxo. waaw ñu duggee ñu dugg YouTube. Draflex D A e sama ajana boo ko tapé rek day ñëw. man I want to to your um, look um, par rapport ak uh, Flavour. Yeah. Flavour mooy dan uh, the, the Nigerian mm -hmm. I uh-huh. mean uh, um, singer. Uh, ndax Flavour moo la inspire or donc daf la neex or. surtout ci coiffure bi mais dañu ndiroo rek. parce que. Ah, Hollande. Mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. parce que damay delluwaat ci lu mu wax mooy dañu nuróo parce que yàgg nañ ma ko wax quoi. Mhm. maa ni maa ni bëgg sama euh, xarit bu jigéen mooy euh, kii Bidéo Vanessa Bidéo def kóoru Bidéo. dafa moom moo njëkk wax loolu. moom da nga am look flavor. ok ma ko bon flavor daan mais jàpp moon turam. xamuloo ko après nag mu ne mu xool foot kii yom kilifa mu ne waaw nga dëgg peut être xam na li xaw am tuuti trait. dafa mhm. ak xeesaay bi ak ak ak look bi you moo tax flavor bu mooy saison When you come in Senegal to, to collab you know. It's possible. yeah yeah yeah. yeah. it's possible. xëy rek gis ko flavor de. waaw waaw ah. kii dafa sob de. dama moo xam ndax dafa nekkoon ci bi tamit. dëgg la dëgg la rajo nañu ci ay yëf. moo Balla bokkoon ci ma formé ah Balla kii Balla maa koy bu baax na bokk na ci mu gën a formé. informateur waaw war naa joué série yu mag. malheureusement producteur yi ñoo am problème entre ñoom. moom moom euh, formé bu baax. jàng affaire yu bëri yàgg ma encouragé mais aussi ah yàgg na ma mm-hmm. mi vraiment am na solo respect laa koy wax di la ci loolu ndax li ma jàngal maa koy jàngal ñeneen ñi di ci man fu ma dem Kassine du ma taxaw macha allah peut-être que euh, cinéma moo demul noonu fii moo tax quoi si musique li ñu a nekk mais yàlla baax na nañu dem nañu dem ci ay projet euh, single bi son bi ak promotion bi wax ñu say projet bu ko defee ñu jël beneen invité yee yee projet yi mooy ñëw parce que projet bi mooy ñëw génne nii mooy EP la quoi. EP EP un mixtape. ok mixtape bi mooy tudd si future. pour wane ni euh, pour jox juste juste wane ni man mën naa wax ni maay future. Euh, du rap galsen man sama rêve mooy créer benn industrie musicale. Euh, ci rap galsen bi you affaire de future affaire pas affaire yoo xamante day yam fii que c'est Sénégal mais l'international dem ba jëlee MTV Awards. puis puis you know dégg ci yeneen level def émission yu mag. c'est bien loolu mooy loolu mooy en fait euh, kii <laughs> <laughs> la avant EP bi dina am clip bu génn bu tudd luy mhm. la ak enregistrement nuyu waa Reptile Musique yëpp plus précisément si Reptile ñu nekk fii tey. chérif manager Samposi. Mhm. big up bro borom baax la. ñu ngi lay kontaanee ñëpp ñëpp ñëpp quoi maa ngi leen di big up. ñu ngi leen projet baa ngi ñëw lii loof e lay kontaanee bu baax a baax a baax nañu dem xooli euh, beneen clip bi nga xam ni moom moo ci topp muy suñu beneen invité bu war a ñëw fii tamit euh, ci plateau bi ayca Pape Samba xoolal ci biir invité yi rek kenn nga ñu jox foofu mu daal di ñëw ci plateau bi toog ñu waxtaan ak moom wala bu yéexee tuuti damay dem ci rubrique bi nga xam ni mooy rubrique humour nañ dem ci rubrique humour bi ten euh, tey tey ñëw tey kan nga ñu indil tey règle yi soriwuma. fii <laughs> nan dem léegi ci élément bi ñu xool ko ñu ñëwaat ci plateau bi may soog a wax tey nag laay wax ba petax génn sama gémmiñ gi dinaa ayca tey bi su wax la ayca Aba No Stress au Sénégal merci beaucoup suivi partout Dieu merci RFM radio leader dëggantaan émission meilleure Aba animateur bu dër xaasit di ma xool mel ni ku fër damaa mën a riime de wér nga. damaa jantal ba dafa may fàttali waa ji nekkoon troisième étage la jantal ba gëm ni moom dafa jantal xam ko koñ bi xam ko mais ñetti xale yu jigéen ñi ñëw xamuñu waa ji mais waa ji le temps muy wàcc xale yi mën nañu romb te waa ji il faut xale yi xam ne dafa jantal parce que moom mooy toj koñ bi mënul wàcc escalier yi parce que xale yi dañ koy romb te il faut xale yi gis ko mu tëb. troisième la tëb xale yi romb ko. troisième la jógee tëb ci suuf xale yëpp a ko romb yuuxu taf seen gémmiñ waaw yaa jantal kii nu mu jantalee nii jantal waa ji jàdd ci koñ bi xale jàdd ne mu jàdd nii dee dafa rusoon dee ci kanam xale dee na bu yàgg. déggal aw ba. yow Wally naan lii moom arrêté nañ ko ayoon yu bari waaye moom gi yàgg na yàgg goo xam hmm, lu ne mën na cee xew. bu ngeen tàccoo dafay gën a neex loxo ca loxo ca kaw loxo ca kaw bu ngeen tàjjee dafay gën a neex la kii tey nag euh, kenn du wax ci sama bopp maay wax sama bopp ndax maa gën a xam sama bopp déedéet ah, baax la ñoo xam sa bopp dañ laa invité maandu nga toog bàyyi waram wax ni bëgg nga teg la say tànk toog jàpp sama ñàmbur la du ah! wax ju sew du jëw dëgg la du fen dëgg la du sàcc dëgg la ziir bi laa ko soxlaa jël ko teg ko bi du sàcc <laughs> ak maanu bala bala tey kii nga ñu andi voilà tey Euh, indi nga ko garaaw. dafa nekk jour bu <laughs> spécial. donc damay indi ko spécial li tax mu nekk jour bu spécial mooy premier numéro. kenn jooy ci 2021. bu kenn jooy. ma indi ko spécial parce que bu ma neexee ma tuddee ko école de football. Hmm. jàngalul ay nit football. nit da ngay yor don mën football. Hmm. mais doo xam noo koy organiser. Hmm. nga dem école de football ñu jàngal ay technique. nga boole ko mu doon talent nga wër àdduna bi. looloo tax ma duppee ko école de football parce que a créé benn espace de rencontre. Mm-hmm. espace boo xamante ni waxtaan la cohésion sociale la lépp la ci biir mais aussi liggéey la. taxawal entreprise indi ci ay jeunes ñu am ay dons mu dajale dons yi boole ko ak technique yi ñu fay joxante suñu biir. Mm-hmm. mu doon talent ba kenn ku nekk mën a naawal sa bopp. Mm-hmm. donc mention spéciale à lui. il est à la fois acteur il est à la il est à la fois humoriste il est à la fois animateur il est présentateur donc casquette il est MC il est MC donc casquette yu bari mu ngi ci et tout sama il a été rappeur aussi parce que gis nañ ko ah, ci soowu ngaaka blende bi aussi il a été Mbaye si Ndiaye <laughs> ngéwél mu ngéwéle donc moom tey bu may wax ci moom defe naa ni bu may day day damay ñëwaat ci li mu waxoon sànq rek bu bu ñu demee bay wax ci bëy ba xaw ma bu uude di wax ci bëy ba mhm. danu naan derwaa tax waaye du loolu ah, waaye la ma fekkee la lu ma gis la lu ñu du lu luñ ma nettali mhm. donc situation la boo xamante ni gis naa ci TikTok bi kenn ko doon wax abano stress ñi ko wër baaxuñu li tax baaxuñu mooy li mu leen defal kenn ku nekk war a organiser hommage pendant qu'il est vivant defoo ko nga topp ci ginnaawam di wax rek ak di ko ñaanal rek ak di ko ñaani baax na mais organiser ko hommage ñu xam ni tollu na la foofu mm-hmm. et il a parfaitement raison il mérite cela tey li Youssou ndur dégg lépp muy disque d'or muy Grammy Awards muy lépp tey dina ko dégg représenté na Sénégal fan ca Marrakech du Rire. Mhm. représenté na Sénégal ca ca ca ca France ca Paris ca. Euh, Samba Show ba. Mhm. dixième édition ba. Mhm. donc des na ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne mi ngi am et il est ambassadeur du fii ci suñu réew. merci beaucoup. I a question for you. Mm-hmm. Abba, no stress bi. naka nga ko kan moo la jox tur. dëgën moom ma tuddee no stress. sama yaay dëgën ci mère. nekkoon meilleur ami sama yaay bi ma yar. Mhm. moom mu dem sama yaay dem donc ma ni ñaanal fa ñu nekk yal na yàlla yërëm leen te xaaral àjjana sama yaay bi ma yar asulem amul woon doom. Euh, mooy topp sama yaay donc mu ñaan ma sama yaay ñu may ma ko kooku moo ma yar moo ma yàq moo ma tàmmal xaalis moo ma def nii ma donc euh, sama yaay dëgën ci mère suñu kër la daan nekk guddi ak bëccëg bu paree émission fii suñu kër la daan añee donc man sama yaay bu soxla waan yàpp teel si mer dafa bëgg ndawal yàlla na yàlla yërëm ko da ko bëggoon man la daan yónni deux heures du matin une heure ma dem yóbbul ko ko vraiment ñu toog ci biir euh, néegam man ak moom kese ak yàlla di waxtaan ci àdduna donc dama ko daan dajji nag di ko dajji ba mënatul wax sama tur du wax aba fils la doon wax fils ba ci yàgg no stress lay wax no stress no stress ba tax bàyyi daaru yi bu ñu indee aba donc ma jël sama yaay euh, dëggal si mer daal di ciy def no stress bi moo indi aba no stress donc yàlla yàlla yërëm ko bi ma ko xamee man du TFM moo ñu boole yàgg na loolu loolu loolu am na ci benn projet bu ñu njëkkoon nekk mais premier invité moom lañ ma joxoon mu toog mais bi ma gisee Aba année boobu ba tey ji amul gramme bu changé ci moom donc dama ko cat loolu rek laa koy ñaanal chéri chéri Mami Thiam ak euh, baayu Khadija ak Mohamed macha allah ak ñi ñuy gisoolagul ñoo ñëpp man daal yem grand yoo xam naa da ngay toog rek bañ tëj ci man la ñuy yem euh, nga nga yegg si fii nii. five years five laa waaw five ba tey laa ci nekk. nga yegg si fii nii hmm. eh, que macha moom. lom dafa lay parce que li ma ma est ce que après est ce que ah, après du ngeen ma may benn affaire lii dañ ko def sama seen YouTube bi bu ñu paree weekend sat bi ñu indiwaat lii ngeen laaj ma yii parce que yii bëgg naa yii mu dugg sama seen YouTube bi. waaye aw ngeen a war a xam ne taalibe borom daaru day tàkk rek. Eh, maam Thierno Ibrahima Fatick. du ay caaxaan l'homme mi nga xamante ni moom mooy jëlee ci yëpp ak kii aba mi nga xamante ni tey. aba laal ko l'homme mi nga xamante ni moom. soxlawul dara ci boppam mm. léppam abal mm. mm. li ma ak li ma def oh. moom moo tax mu teralee ma nii ma génne ko en direct mu teralee ma nii li ma waxul li ñu wax man li ma wax mu teralee ko direct nii ma génne ko lom deful ci modestie deful dara naa ko def statut tamit <laughs> ko delloo borom bés bi loolu yow lom moo def ci lii ci yow vraiment sénégalais yëpp di ci remercier léegi nag li ngeen ma jox nii li ngeen ma jox nii Euh, xam nga nit boo juumee. da ngay nangu ne da ngaa juum. da damaa juum. invité bi dañ maa jox turam ak santam yëpp ma fàtte ko léegi lii dama koy jox moom mu présenté wax àdduna moom mooy kan dimbali ma rek dimbali ma rek nga baal ma loolu baal ma rek. asalaamaaleykum Sénégal. asalaamaaleykum bépp téléspectateur buy suivre TFM. Mm, fii mooy caméra di nuyu tamit di nuyu Aba bu baax si dalal bi di nuyu tonton Maw moom mu waral sama invitation fii nii. Uh-huh. di nuyu képp kuy liggéey biir Télé Futurs Médias di nuyu waa Diamaguène aussi bi ma dëkk. ah yow balaa dëkk ñoo bokk dëkk. diplomatie from DG. ngeen ah, wax wax ba ma fàtte te kii moom Samba Pesé bokk koñ. ak Siteu mook Toch ak six mille mu réew mi. dafa leer waaw waaw ñoom ñëpp samay xarit lañ. te ma wax la leen Dibalo dafa ñëw ak lu bees. mooy lan Dibalo xanaa nga bañ. dipp la xanaa nga bañ nee leen dipp la xanaa nga wax leen dipp la xanaa nga bañ nañu dem xool vidéo bi te ñëwaat léegi ci dipp la xanaa nga bañ dipp la xanaa nga ko xamewul gisoon naa ni man ak yow sunu amitié nit ñëpp ko naw changement bu metti mbégteel bi nga ma ko wan mi ngi may sonal metti na ci man tax na ma ragal ni seytaane eh. kii am na voix de il faut faire très attention. non fan yii jàmm gën ñu ngi yëngal ci talent de. seen talent ngi génn de. lii daal la lii daal da nga jëlaat son papa Youssou Ndour maa ngi koy nuyu au passage. Oh, quelle voix doon suñu référence. moom mooy jàngal ndaw yi. te waaw wane na yoon bi. te son bii nii nii dafa doonoon son boo xam ne man dama ko yàgg bëgg. ba may xale maa ngi sama yeneen son mais damaa ne pourquoi pas ma woyaat. son Youssou Ndour ndax son Youssou Ndour dëggantaan cuune du ko way cuune moom mënul way ay wayam boo dee cuune moom da ngay xaar si ay son mm-hmm, mm-hmm. mais maa ngi koy nuyu bu fekk si plateau bi mais Diop lii dafa nice et puis ak sa voix tey ji euh, ni nga xam ni mooy say style euh, wute na ak voix bi ak ci genre musique bi nga xam ni moom nga way yéen lan mooy seen problème yéen booy yi dëkk jàmm gën ban problème ngeen am ay toj di toj fële ay sax bu pës yi nit daan la ñoom simila mën ci euh, TikTok bi yow nga ñëwaat indi lu bees seen secret mooy lan. non jaamu gën xam nga ñun dañoo doon benn avant tout. Mm-hmm. te ñun jiitaluñ àdduna ñun am nit ñi lan la ñuy wax am nit ñi moo gën am alal ba pare teg si ñu doon ay taalibe borom daaru eh! lii rek lañ mën a mel ay tarkinda lañ c'est ça wax ñu say projet wax ñu projet yi ak promo album ah, euh, li nga xam ne mooy euh, clip bi dañu sot ñëpp ñu toog si waaw yee ñu ngi waaj ay projet am jàmm gën laa gis ngay dugg paa yeeg maire yëpp nga nuyu père yow lan nga tarkinda ah, <laughs> maa gis benn paa bu yor yet père yow daan na ma doom projet ñu ngi waaj benn clip. avant dem sax dinaa la si montal oh, bu njëkkoon danga yaru woon mais ñëpp a gis ne danga jàdd yoon léeg-léeg dama lay woo nga xool ko te doo ko jël boobu def nga sa bopp jigéenu njëkk a jël eh, eh bul ma ne say feem soppi nga koy fen ma dégg li nga wax fépp mooy man duma ci leen oh, man mi la daan woowee sama bébé ndake boobe jàppe woo ma lu dul benn bébé ndake sama defet yaay kii ke fete ndake luy metti ci man ci yow lay jugee fallaaw yaa fi def ci weekend saat lu fi kenn musul def ci 2021 bi yaa fi njëkk a concert di dimbali ñu am am yeneen invité yu xaar ah non mais tamit mais tamit mais tamit wax ñu projet yi sant ñi nga bëgg sant ñëpp waaw maa ngi sant waa jàmm ga mhm. cat ba cat di nuyu tamit waa DMC waa Cité Djily Mbaye di nuyu tonton Ban production. Hmm, aussi di nuyu sama tadaawaa di nuyu hmm, hmm, sama tadaa. ñëpp ñëpp ma limee damay jur waa Ouest Foire maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp. merci beaucoup ñu ngi lay kontaanee Diop ñu ngi lay kontaanee donc ay ayca ayca ayca amal jàmm rek amal jàmm ñu ngi bég ci yow bu baax a baax a baax nañ déggoo léegi rek léegi rek léegi ma ñëw ndeysaan <laughs> gis sëñ Bamba never mind never mind Fall maa ngi doon di ñëw ci yaw ayca euh, di di euh, nañu dem ci élément yi nga xam ni moom nga ñu indi dañuy def benn récapitulation benn petit récapitulatif. Euh, récapitulatif tif waa tif sion bi ak tif bi. ban différence eh! eh! yow man maa leen dimbali man ci man. waxuma wax ju sew. <laughs> nekkuma fi débat. nañ dem ñu fàttaliku tuuti ci li nga xam ne juste ñu fàttaliku ci côté li nga xamante mooy musique bi. am na yenn son yoo xamante jaaroon nañ fi. te def nañu bruit am na yoo xamante nit ñi ñu ngi koy utiliser ci TikTok bi am na ñoo xamante tam ñu ngi koy utiliser di ci wax seen soxla comme nga bëgg wax ak Balla am loo bëgga wax te sañoo ko wax wala nga rus ko ko wax da nga koy jël rek. yàlla buy taaw ngay fobeere sa doole moo ci jeex noppi na ba pare. yëngal ennemi. maa koy yëngal. fépp laa mëne yëngal nga ay waay maa léegi benn ci wax way yaa ngoog benn ah. boo xamante ni wax sa soxla la waaye dooma téere dundu gëd gëd gëd gëd gëd dooma téere dundu gëd gëd nu koy waxee sax ngay jóge ko daanu waaw ñu naan la yow mi de mais c'est nag loolu tamit loolu tamit lu fi nekk la waaye tamit benn way bu neexoon waaye te gaaw a dem léegi léegi léegi lamba léegi léegi léegi lamba ndeysaan xanaa ñu kenn waxu la nga way yeggalil ak waaw ñuy laaj rek ñoom fu ñu ne fi mu ak lu ñuy waaj. ñu ngi koy xaar waaye tamit tamit tamit tam ku solo boo waree da nga tamit tamit. ONG eh, xoolal li ma sañ se waa. ak Didi eh, sama turandoo ba Didi Jaw Jóob. Didi waa Didi Jaw Jóob. waaw man tamit waaw waaw. ak ban mais nag wéradi wéradi wéradi loolu eh, nga di jox ak Katsuki ak ah, Katsuki waaw ñoo ñëwoon nañ fi tam ñu xale yu am talent ñu leen dégg baax waaw mais nag man sama coup de cœur ci 2020 bi nañu nekkoon sekkuñu bàyyante waaw waaw oh. ah, jaamaan lu mu way neex na jaamaan jaamaan ba nekk ci bi wallaay wallaay kooku man séq ñu bàyyante lu mu way neex na allah waaw moom foowee nañu bu baax lu mu génn it la non lu mu génn it la te bizarrement ces textes sont super riches mhm. ba pare voix bi macha allah pare bi day réglé rek macha allah comme bambalage bi rek yow léegi nga <laughs> bu loolu weesoo am na ñaari mariage tamit yoo xamante ni dañu def buzz ci 2020 bi mariage bi buzz na ci coté fashion coté sañse buzz na ci côté may bu njëkk yëkkati na level bi ba ci kaw ba pare bës na ci côté star yi nga xamante ñoom ñoo nekk ci série yi ak ñi nga xamante ñu ngi ci web ñaar yooyu su ma leen bàyyee ngeen may jox sumbulu bàccile ah waaw sumbulu ak Mbathio Ndiaye merci ñaar ñooñu la ñoom na tamit ay mariage yu noonu la amee ay tas yu siiw tas ay tas yu siiw am na ci ci 2020 bi waaye Facebook dafa dévoilé benn xale bu góor ci boo xamante ne il a fait nos journées reetaanloo nañu ci Facebook bi muy Mame Balla Mbow Mame Balla Mbow il fait des euh, choses extraordinaires de la banlieue de la banlieue yëmbal la moo tegoon xeer bi waaw tegoon xeer bi waaw macha allah Mame Balla Mbow en tout continuation mais beneen yoo xamante ne ay live la yu daw ci Facebook bi yu ñu yëngal tuuti yoo xam dañ ciy dégg ay gros mots di ci dégg osé daal. mooy yan Ndella Madior Diouf. sama yaay Ndella Madior nee na j'adore ah dañ koo jiñ ñu nekkul. moo tax mu leeral rek. mais moom leeral na de moom dafa am fit man j'aime bien Ndella Madior dafa am fit. yaayu Sara nee na je suis Dakar Dakaroise. waaw loolu waaw dëgg la wax na dëgg. dëgg ak ñu dem ci série série yu toj waaw série yu toj te dëng te dëng am na yu ñëwoon ci weeru koor bi ñu naan jeex na ak jeexu laaj ñu laaj ñu la laaj ñu la ay waa bu ba boor bi waa boor bi ay waa ba tey tey ñëw nga ñaari yoon nag ci émission bi gàlle no stress gàlle no stress waaw ak baba des applaudissements alors akbar alors ñu ciy nuyu ñëpp waa ñoom ñama xiit tout le monde donc euh, Virginie mooy coup de cœur bi defe naa ci 2020 ah Virginie ah mooy série ah bi nga xamante ni moo gën a toj moo gën a def buzz et puis moo gën a révélé ay talents yu bees mm-hmm. parce que ñu si bëri gisoon nañ leen ba pare mais mm-hmm. Virginie dañu gis vraiment ñu bees tàq ñoo xamante ils ont fait l'année Karma c'était magnifique guddul gàtt na c'était concis et c'était c'était super les mais nag I bi dañuy tëj année bi malheureusement parce que lu muy neex yëpp dina am loo xamante daf siy metti mooy décès yi nga xamante moom la ñu jànkonteel ci at bii di yu ci mel ni bu Pape bu Diop Pape Diouf ñi dem ci Covid 19 bi ak ñi nga xamante ne ñoo des ci géej gi aussi donc ñooñu ñëpp dañ leen di tënk rek ñaanaale pour ñoom ñoom ñëpp ñu nekk ci jàmm ñu nekk yàlla xaare leen àjjana ñi nga xamante ne ñu ngi ci sëy yi yàlla bàyyi leen ci saxal leen ci et ñi nga xamante ne ay talent yu bees la ay révélation Aba No Stress yàlla def ci 2021 bi ñu ñëw ak projet yu bees yu gën a nice yu gën a rafet lépp gën a jëm ci kanam amul problème amul euh, ay créer dara amul ay explication ku ci nekk ci yéen préparé leen kuy sa l'homme de l'année amul kii mooy l'homme de l'année bi mais c'est ku ci nekk <laughs> ku ci l'homme de l'année teg l'homme de l'année teg l'homme de l'année teg donc euh, the man of the year man or euh, woman donc waaw the person of the year donc ku ci nekk ci ñun mën nga xool ki nga xam ne moo la gën a marqué ci at mi mais amul ay waxtaan amul dara Diop maa ngi lay ziar bu la nga nuyoon teg téléspectateurs yi sa caméra ngi nga def sa présentation wax ñu yaay kan avant tout maa ngi nuy gars yëpp ñu nekk si si plateau bi. di la nuyu bu baax. avant si bi. di nuyu téléspectateur euh, TFM bi. surtout émission bi ñuy suivre émission bi en ce moment. ñu nuyu waa Médina fu ma jugee. Mhm. Euh, waa Suisse fu ma dëkk. Mhm. di wax waa gars yi ma la Jimams. Jimams xam nga euh, di sénégalais di waa Bissau Guinée aussi. et que maa ngi nuyu yëpp. da ci nuyu Habib ah Habib Made in Africa Habib bu 2STV ah. sama waa Habib maa ngi lay kontaanee bu baax ah. MVP <laughs> MVP sama waa ji maa ngi lay kontaan nañu dem xooli clip bi eh, te ñëwaat léegi dugg ci waxtaan bi. Eh, gën a yaatal eh, xam naa ne temps bi dañoo xoj par Samba deux minutes rek nga may ni ko ayca. na solo may ñaan rek bu ñu tëj ñu tënk ñëpp nañ tënk ku tënkul dañ lay dagg ay ca jo tey ji euh, naka la clip bi inspiration clip bi fu ñu defee clip bi ak yooyu ñu wax ci projet yi quoi waaw son bi son bi dama ko def euh, waaw si studio laa nekkoon ah, si benn mood ak sama producteur bi mu ne suñu projet bi il faut mu am genre façon son yi quoi maanaam mhm. afro quoi mhm. parce que ñun dañoo tàmm di def euh, di rap chaque instant di rap di rap mais moom mu ne bu ñu xam bu ñu buggee egg feneen xam beneen level il faut ñu def genre son yi quoi moo tax xam ma son bi sama copine rek moo ma inspiré ah sama copine moo ma inspiré ma def ko am nga ñu dem tourner ko itali quoi xam nga gaa équipe bi jóge Suisse dem ba Italie xam nga ñu débloqué benn budget def ko mu nice. donc da nga ñëw fii. Euh, non non du moom moo si clip bi. donc yow da nga fi ñëw pour def promo bi wala da fi ñëw en vacances lan moo la indi. voilà de dama ñëw xam nga vacances déjà sama famille. parce que man benn rek laa am chance quoi pour ñëw si année bi. macha allah pour ñëw seeti sama famille bi parce que ñoom ñëpp ñu ngi fi. Mhm. man kese maa nekk foofu. et dama ñëw pour vacances en même temps xam def ay quelques featuring ak artistes yi nekk fii nii waaye ak Habib moom yëpp mën na nekk ak voilà <laughs> maa koy nuyaale bu baax mm, mm, mm. sama gain la quoi donc en tout cas ñuy kontaan nga wax ñu projet yi euh, ak lan ngay waajal rek euh, ñu sant la gërëm la bu baax a baax a baax euh, projet bi gars yi maa ngi wax gars yi ñu koj ko quoi mu ngi ñëw début dans quelques mois rek incha mm-hmm. allah avant avril moom dina amaguñu date quoi mais avant avril benn EP xam nga bu ndaw dina génn quoi. ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax maa ngi leen di ziar aussi bu baax fan la ñu mën a dem pour xool bi. clip bi mhm. def euh, G Mams maanaam G tiré du bas. Mhm. Mams quoi M A M S. Ah, ma Instagram aussi moom moo fa am na solo mu ngeen def foofu suivre affaire yi. jaajëf di wax ni projet yi ñu ngi ñëw. jaajëf maa ngi nuyu gars yëpp. jaajëf surtout yéen yëpp si plateau bi. ñu ngi lay ah. fay ñu ngi lay fay affaire yi rafet merci beaucoup euh, looy tàggatoo donc euh, man comme d'habitude rek damay nuyu Cheikh di ko wax ni maa ngi koy jaajëfal début bi ba tey defe naa ni moom moo si jàpp numéro mi ngi nekk 460 493 22 37 ak xadisa yi mi nga xamante ni sama bopp bi tamit tout le temps tout le temps tout le temps c'est LT vraiment tàyyiwul benn yoon. kuy sa doom de l'année. Abdoulaye Diouf Sarr. Abdoulaye Diouf Sarr Diouf Sarr yow waaw sant bu baax élégance by Rita comme j'ai l'habitude de le faire moom itam borom yëre yi rafet yeeg dàll yu rafet yi 77 218 61 61 mooy bosam waaye di santaale aussi Pape Shop borom UBT moom itam ay yëre yu tubaarkàlla la may jox 76 288 65 mooy euh, numéro donc ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox rendez-vous samedi prochain. kuy salon de l'année. Macky Sall. Macky Sall salaamaaleykum mën ngaa tàggoo. Euh, Aba maa ngi lay remercier di leen remercier yéen ñëpp di leen jox euh, dig daje ba samedi prochain incha allah Aba di remercier ki nga xamante ni mooy Momo Novita bi yaa ma booleeg moom te boobu ba léegi mi ngi jàpp ci combat bi. Mm-hmm. di ko remercier bu baax a baax képp ku ko bëgg a jot mën nga ko woo ci 78 135 01 01. nii la ayca mu yow. sama lom da la ne. kan mooy sa lom da la ne Youssouma Jigéen stress. waaw waaw waaw waaw waaw asalaamaaleykum. Eh, maaleykum salaam nañu tàggatoo. waaw eh, may eh, remercier Human Hair by Ami Van Spa ak ki nga xam ne mooy suñu taar for the hair. Mhm. mun ngeen ko woo si coiffure bi ak yeneen si 78 173 61 71 waaye sama mag di Fatma Aydara si veste yi may jox temps yi si 77 639 99. 92 waaye euh, di remercier Adja mu Serigne Fallou bu baax a baax a baax mu ngeen ko woo si 77 723 32 32 pour ay vaisselle yi nii Abass no stress. kuy salon de l'année. Euh, man she's female jigéen. kan la euh, Fatou Sène Gueye Ndioro ca Gambie. Fatou Sène Gueye ah moom ok ok ok donc loolu baax na maa ngi kontaan ci ñi nga xam ne ñu ngi doon seetaan di kontaan ci ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi équipe technique bi maa ngi leen di kontaanee bu baax jël seen nuyoo yéen di ko jox ci le grand réalisateur Samba Thiam. mu nuyul ma équipe bi yëpp di kontaan ci yéen di leen jaajëfal di leen souhaiter une très bonne et euh, meilleure année bi nga xam ni comme mooy année bi nga xam moom la ñu génn li ci nekk ci euh, mettit yooyu yëpp am na ci mais di leen tàggatoo ak li nga xam mooy bukki yi bu yuusuma jigéen man nag sama lom de l'année danaa leen ko wax ci réseaux sociaux yi leen <laughs> yéen ñëpp tàccu leen Abba tàccu leen waay ñi nekk ci salle bi technicien yeeg caméraman yëpp Abba dirigé la tàccu foofa parewu waaye nag tàccu cey lii Baye Niass ni ngay sàmmi yow sa bëggeel da ngay moytu ñi lay fexeel du ñu dem du waxi noobee beneen essaie de courir tant que de tourner côté.